jaajëfal nañ leen bu baax amee site internet net bi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy doo rek parti bi di fi jamono ji nag daal di nay yeewaat beneen candidat bu bees ba tey rek bu ñu sukkandikoo nag ci kàddu yi nga xamante ne kii di Ousmane Sonko daal di woon nag koy yëkkati rek ni ki démb jaarale ko nag ci jot na média TV la mu daal di xam ne rek mooy candidature am jamono ji daal di na koy révélé kii di Bassirou Diomaye Faye nag moom mu nekk plan B bu parti bi di Pastef ngir mu dem ci élection présidentielle ñu at ginnaaw nag bi ñu xamlee mbir mu nu mel lañ ko daal di fësal ci yéenekaay yëpp rawatina nag fépp foo xamante ne rek ak ay xarala yu wees la moom député bi di Guy Marius Sagna nay def ab réaction ci mbir mu nu mel nee na nag parrainage bi dinañu ko doox niki tey ji waaye nag bëgg na balay 24 heures rek nañu am 3 millions pare pour jàppale bu baax kii di Bassirou Diomaye Faye ba tey rek moom député bi la mu daal di xamle mooy Macky Sall nag dem naa wut côté bu nekk rek pour dëgg sërëx kii di Ousmane Sonko moo xam nag jaarale na ko ci justice jàllale na ko ci anam bu nekk waaye nag ñoom nag la ñu daal di xam ne rek dinañ ko wan carrément que ne nag ñoom ay vrai patriote la waaye nag dinañu xeex ak moom ci terrain bi wan ko nekk ko ñoo la mën ñoo la ëpp doole di kàddu kii di Guy Marius ba tey rek la mu daal di yëkkati moo di ne tontu bi nga xamante ne rek pare nañ pour wan ko Macky Sall nag moo di ne na bàyyi manipulation bi nga xamante ne mu ngi koy def ci këru ko justice gi waaye nag mbir mu nu mel ginnaaw bu mu ko defee niki ajjuma bi ñu génn rek ci kanama cour suprême ba tey rek la mu daal di xam ne moom mooy Guy Marius moo di ne nag pour Sonko jamono ji ma nga ca am ñu ngi ko tëj ba noppi rek xëñ ko lépp loo xamante ne àq la ak yelleefam waaye nag ay plan rek xajul ci kii di Macky Sall dina ko wan na ko maa la mën maa la ëpp doole dama lay gagné par force di kàddu kii di Guy Marius Sagna nekk député nekk activiste waaye tamit nag nekk membre ci parti bi di fa jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné ba cloche de notification ngir am ay yeneen info